seen mbokk daara Abdoulahi Gaye di leen ko présenté ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu xàq te ñu ngi leen di baal àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def ñu dëgg-dëgg jullit ñaan nag borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu xéewalu saa yu ñu koy wuy ji yal nañu yóbbaale suñu imaan ci barke yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngeeg yéen xam ngeen ni ci seen saar bu amati solo bii di suratu raad ñu amoon ci ñaari aaya tey ñu war a jël ñetteelu aaya bi ñuy fiy jóge nag ñu ngi daaneele woon ci aaya bi suñu borom subhanahu wa di wax ni moo bind asamaan si te amul dara lu ko téye lu ñuy gis yemoo ca arasham ba tàggatal nu jant beeg weer wi yëpp di daw ba fa ko neex moom borom bi subhanahu wa ak jamono ja mu ko neexee mu ni moom borom bi mooy ki nga xamante ni mooy tàggati mbir yi nu mu ko neexee di ko façonné di ko wëlbatee na mu ko neexee moom borom bi subhaanahu wa taala waaye nee na it mooy faram-fàcce aaya yi moom borom bi subhaanahu wa taala ah, mbir yi nu ko neex la koy tërale ñii bu ko neexee ñu am ñii bu ko neexee ñu ñàkk ñii mu jox leen nguur ñii mu xañ leen nguur ñii mu bàyyi leen ñuy dund ñii mu faat leen yooyu yëpp programme am la waaye yu fassilul ayaati mooy faram-fàcce aaya yi di ko leeral ba mu leen nañ laallakum bi liqaa'i rabbikum tuuqinuun nee na loolu dina tax bu ñu xoolee mën a gëm ni bis ñu ànd ak certitude al am na solo waaye nag waaw dafa am sax du jullit war di ñaan yàlla yàlla yàlla ñu ñu defar certitude ci li ñu gëm waaw gëm rek am na waaye gëm gu dëggu yi dafa am solo lool mën ko yàlla nag ñu defal loolu li ñu gëm yàlla na dëggu ci suñu xol ni lii ñuy wax dëgg la ci ñun ñu gëm ko muy lu am solo mu ne wax walladi moom borom bi mooy ki nga xam ni maddal arda moo tàllal suuf si gis nga ba mu waxee ci asamaan si ba pare nag léegi nag mu ngi ñëw ci suuf si mu ni moom yàlla moo tàllal suuf si tàllal bii nag mu la wax dàqonte wul ak li ñu lay wax muy kurawiyatul ard ni la la terre est loolu it lu nekk la xam-xam génne na ko dàqonte wul ak nag lii mu la wax ndax dina la leeral ay mbir ci aaya bi ndax suuf si dafa yaatu lool mu ne moom borom bi subhanahu di moo ko tàllal mu ni wa jaala fiha rawasiya nee na mu def ci ay doj maanaam ay montagne loolu an tamida bikum day bañ mu jéng jëm fenn moom suuf si moo tax yàlla montagne yi ngay gis ci ci kaw suuf si bul defee ni lu yàlla luy def lii rek bàyyi noonu moo tax yàlla ni la afala na ila al ibili kayfa xuliqat wa ila samaai kayfa rufiat wa ila al jibaali kayfa nusibat loolu du caaxaan yàlla nee na doj yooyu ak jalante boobu suuf si yenn say fii kawi fii nee na man borom bi maa ko def te xam naa njariñam ci yéen moo tax ma def ko nee ba mu tàllalee suuf si mu tàll nee na maa maa ci def loolu nag doj yooyu borom bi subhanahu wa taala na moom moo ko ci def wa jaala fiha rawasiya nga gis ndeysaan suuf si ni ko suñu borom binde fii nga gis ni tey tàllalu ndeysaan fii nga gis ay suufi suufi suuf la suñu borom subhanahu wa defar bind ci biir suuf si te dina ci ñëw sax ci biir aaya yi incha allah muy lu jara bàyyi xel waaw ni mu bindee mu bindee suuf si fii kawe fii doon beeñ fii doon fu am su xorom fii doon foo xamante ni kekk loolu lépp borom bi subhanahu wa moo ko def waaw yenn saa yi mu tàllal fii mu tàllal léegi nag noonu mooy tàllale fii mu doon beeñ tàllal fee mu doon suuf su am am tàllal fee mu doon keek tàllal fee mu doon joor tàllal fee mu doon ñooñu mu ko defare moom borom subhanahu wa taala teewul loolu lépp la ko def waaye ci di suuf si tourné woon nag doone def li ñuy wax kurawiyatul ard ca ñi nga xamante ñu ngi gis wàllu géographie xam nañ ni la terre est loolu nag ba ko alquran di di di di génne du léegi kon jamono moo dem ba xam-xam yegg foofu suñu borom subhanahu wa taala nag lii la wax mu nit it wa anhaaran moom borom bi moo def ci suuf si nag ay dex waaw moo fi def ay dex ndax ndox mi géej yéeg déeg yéeg yooyu yëpp borom bi subhanahu wa nee na moom borom bi subhanahu wa moo ko def ndox yi dem nag waaw wa min kulli samaraati nag bu mu ci meññent yi nag jaala fiha zawjayni nii moo ci def peer pour man pour mu mën di jur gis nga nee na moo ko def gàncax yi sax mbokk yi dafa am bu góor ak bu jigéen te kat dañuy sëy pour mu mën a jur yeneeni gàncax allahu akbar kon lu ci nekk rek góor ak jigéen la ci defar ba ca bàyyi ma yàgg gàncax ga nii mu la ko waxee noonu la topp fu ne moo tax bu ci nekk nag bu ne na ca góor ak jigéen di ànd ba ca nit it noonu la defee góor ak jigéen moo tax phénomène surnaturel yii man ni lislaam xaw ma nu ma ko mën a waxee sax l'islam munu ci ànd góor gu ànd ak moroomum góoram wala jigéen ju ànd ak moroomum jigéenam loolu l'islam munu ci ànd ndax li mu bëgg mooy zawjay ni la yàlla def góor ak jigéen wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaan loolu la la waxoon ci suratu nisaa mu ne nag meññeent yi sax yàlla nee na maa ci def zawjay nisnay ni waaw waaw nee na maa ci def ay peer bu ci nekk rek bu am bu góor ak bu jigéen bu demee ci abu saud nee na la jaala min kulli nawin min anwaai thamarati al mawjuda fi dunia sin fay ni nee na bu ci mën a doon rek ci yi nga xamante ni meññeent yi àdduna yi moom moo ci def euh, ñaar waaw mu koy leeral ni imma fi law ni moo xam ca couleur ba la mu def couleur blanche def couleur noire waaw couleur bu weex am na bu ñuul am nee na wala ci cafka yi liy wex liy neex noonu yàlla moo ko def nee na wala ci tolluwaay bi bii doon bu mag bii doon bu ndaw nee na wala ci kayfiya bi li tàng li sedd waaw nee na yooyu yëpp suñu borom subhanahu wa taala mooy ki ko def mu ni wa min kulli thamarati jaala fiha ni nag yuxshi layla annahaar nee na da ngay nekk ci bëccëg ba si yàgg guddi gi di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba dab ko su ko dabee da koy muur nee na guddi gi day ñëw muur bëccëg gi nga gisoon gisatoo nag léegi mu commencé lëndëm léegi nag il faut nga utiliser yeneen i moyens pour mën a gis moo xam da ngay yor làmp moo xam tempet la moo xam torche la moo xam sondeel la moo xam da ngay taal bu dee ca yenn béréb ya ñu ne nañu jël matt mi taal àll fii ndax mu mën a leer ñu mën a gis ndeysaan njàngi daaw nag njàngi mag ña nag noonu la woon daan daan daan jël matt ma rek daal ca guddi ga jamono la woon nag jamono la woon Ah, jamono la woon waaye nag jamono moo dox bay moderniser nag bay moderniser moom laay wax rek tabaarakallaahu nii gis nga coow li bari na ci réew mi waxi daara moderne yeeg ndax dinañ moderne du ñu moderniser man damay paral di wax ni certes il faut être authentique mais moderne jamono moo dox authenticité ak modernité il faut ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel waaw bu ñu ñëwee nañu yëg ni fii daara la waaye nag lu jamono laaj nañ ko ca def ndax mu dox temps bu nekk jamono buy dox da ngay ànd ak jamono waaye ànd ak jamono bu mu tax nag nga bàyyi say principe waa li nga xamante ni moom la maam yoroon téye ko waaye nag seetal noo ko gën a dëppaleeg jamono nu mu gën a gaawee nu mu gën a doxe nu xale bi gën a mën a profiter ci temps bi nga xamante ni moom lañ koy indi ci daara ji waaw lépp lu luñ ko war a mën a jox ñu jox ko ko ca jamono jañ ko ko war a mën a joxe loolu subhanahu wa taala dafa xam ni jamono day dox moo tax lu ne mu ànd ak jamono mbokk yi damay wax ni mënoo yor alquran muy téere bu moderne ba pare yow nga ni doo moderniser wu déedéet waaw déedéet alquran dafa moderne damay wax toujours ni ñun ñii toog di def tafsirul quran feeg jamono ngi ñëw ay suñu yeneeni njaboot moo xam ay doom lay dooni moo xam ay sët lay dooni di leen ñëw suñu dégloo suñu tafsir yi dañuy réer ni ñi de xamuñu fi alquran toll. ci alquran toll comme ñun ñii jamono yi ñu koy def am na yu suñu baay yaag suñu maam ya nu ñu daan tafsiré noo xamante ni ñun du ñu ko tafsiréeti parce que alquran moom moderne mooy dox di dem toujours dama koy wax mbokk yi ma ne yenn saa yi damay firi benn aaya damay yegg ca kër gi rek góor gi woo toogaatal ma toog mun ma firil ma fii waaye su ma koy firiwaat bu toogee dama ko koy firile moom na mu na mu na mu ko bëggee su paree mu ne ma mais lu tax waxee woo ko nañ man ko jamono la jamono moo am lu mu indi léegi ñun dañuy ànd ak jamono jooju li am solo mooy nañu fexe ba ànd ak jamono bu mu ñu yóbbu mukk ñu bàyyi li nga xamante ni mooy dëgg alquran kenn mënu ko bañ a moderniser ndax alquran lu moderne la waaye na tegu ci yoon état lam ca war a def na ko def na xamit kan mooy interlocuteur am ci wàllu daara mu wax ak ñooñu fexe ba communication bi jaar yoon loolu moo mën a jur njariñ waaye bu ñu faussé communication bi dara du nan ngeen di moderniser woo waxtaan ko ñi nga bëgg ñu moderniser wu toog ak ñoom ñu indi seeni point de vue nga indi ngeen toog waxtaane ko ba trouver terrain d'entente waaye bul indi mukk sa mbir ni man nii laa bëgg ngeen moderniser wu nit kat faaqidu shay'in laa yu'tihi nit ki li mu amul mënu koo joxe ba ñoo moderne de waaye nañ ci waxtaan ak ñun ñu teg ko ci yoon xool nu ñu ko war a mën a organiser ñu doxale ko noonu buñ ci ragal dara nag bu boobaa yow mi nga xamante ni jàpp nga ni war nga mën a moderniser liggéey bi ngeen bu ragal ku ni da bëgg a soppi daara déedéet waaw dooy det ñun ay doomi daara lañu waaw dama wax keroog benn ci benn ci benn rajo ma wax ni ñun doomi daara yi mënuñu bañ a mënuñu bañ a fonk daara parce que dama fi déggoon benn ci mbër yi mu wax ni xaalisu làmb lañ ñu ngénte ñun ñëpp xaalisu daara lañ ñu ngénte ñun ñun ñëpp ay doomi daara lañ kon ñun teraanga ju ñu am daara moo ñu koy jox kon faaw ñu ànd ak jamono waaye teewul dafa am fu ñu foo xam ne du ñu nangu ko fa yegg kon waxtaan bi bu amee rek communication bi jàll acteurs yi mu yor daara toog ak ña ñu ko war a toogal bu ko waxtaanee solution am waaye feeg ñu ngi jël ñoo xam ne seen yoon newul ci daara xamuñu tus ci daara ñu bépp ni ñoom rek ñoo war a yor mbir yi du dem mbokk yi nañ ko waxtaanee waat nañ ko teg ci yoon doomi daara yi nañ leen ci dugal bu ñu leen ci dugalul rek mbir mi dina xajam. nañ cee war a dugg nañ ca dugg xool nu ñu ko organiser nu ñu war a waxee wax waxu modernisation daara loolu nag mbokk benn parenthèse la woon rek ci cee duggee ci rek guddeeg bëccëg mu ne nag guddi gi day dem ba si yàgg rek muur bëccëg gi waaw yuxsi layla an mu ne na fii daalika nekk na ci lii la aayaatin ay kaawteef ak i kiimaan waaye li xaw mi yatafakkaru na ñeel gaa ñi nga xamante ni ñu ngi jëfandikoo seenum xel ak ñiy xalaat xam na ni daal lii yéeme la yàlla ni mu bindee asamaan si ni mu bindee suuf si tàllal ko def ci ay dojam muy ay montagne def ci ay dexam ak géejam nee na it meññent bu ne mu def ci bu góor ak bu jigéen peer la ci def yàlla ni guddi gi ni muy muure bëccëg gi nee na loolu lépp nag waaw inna fii daalika nekk na ci lii la aayaatin ay kéemtaan ak i kaawteef ak i taxaw seetlu waaye li xaw mi na ñi ko mën a xam mooy ñi nga xamante ni ñu ngi jariñoo seenum xel ñoom rek ñoo ko mën a xam mu ne it nag wa fil ardi nekk na ci suuf si nag waaw suuf si la doon waxal bàyyeegu ko mu ne nekk na ca xitaaun mutajaawiraatun ay dogit dogit yoo xamante ni yu taqaloo la yu jege yoo nag mel ni yu dëkk te bokkuñu mbokk yi loolu lu yéeme la aaya bi xoolal suuf si dangay ñëw fii léegi mu wow yow da ngay dox léegi jaar ci àll bi ñun la yoon wii de yoonu sareet la nga dem ba si yàgg yoon woowu jeex nga gis fu wow koŋ ñun la fii mën nga fii jaar fii kat moo am suuf si fii amul suuf si te lépp bokk ci benn nekk ci benn suuf si yàlla def ko ay dogit dogit dogit waaw qitaaun waaye mutajaawiraatun ay suuf yoo xamante ni yu wuute la de waaye yu jege yoo benn ca moroom ma moom la Abdullahi Ibn Abbas ni mooy ardun tayiba wa ardun sabqa tanbutu haadihi wa haadihi ila janbiha la tanbut nee na da ngay ñëw ci suuf si gis si suuf soo xamante ni fii kat joor la fii janj la nee na nga gis fii ci suuf si foo xamante ni dafa sapp xol nga gis fii ci suuf si ñaari suuf yu dend bii boo fi wee mu nangu bii nanguwul ji nee na suñu borom subhanahu wa taala moo def loolu wa jannatin min aanabin yàlla it moo def ay tool yu def na ko nag ci raisin waaw tool yu bëree bëri ci as asjaar la inab yi nga xool tool garab yi meññeentu raisin yi ni mu bëri moom yàlla la wa zuruin ak mbay wa naxilin ak i tàndarma yoo xamante ni sinwaanin ay xeet la ñuy doon wa xayri sinwaanin ak yu doonuli xeet waaw léegi loolu it suñu borom subhanahu wa taala mooy ki ko def hadi alqitaa almutajawir anwaau zuruu walxubub wannaxil war waaw nee na loolu borom bi subhanahu wa taala moo ko def nga gis ci garab yi tànd yoo xam ne ay xeet lañu benn bi lañ yenn yi nag du doon benn xeet waaw ko daan waxee rek ci gerte gi gerte gu gudd ak gerte gu gàtt ga yooyu yépp ay waxin la ay waxin la yu am solo yu tabarakallahu alquran daf ko wax waaw wa fil ardi qita'un mutajawiran nag loolu suñu borom subhanahu wa moo ko def yii xeetu yii nag du ñu doon benn xeet bi te yépp nag yusqa bi maa in waahidin nee na yàlla ci benn ndox lay régler situation yépp kenn du suñu borom mbokk yi nee lii mu la wax yépp ci benn ndox mi la koy régler mbay meek garab bi tàndarma yeeg garab bi raisin yeeg nee na yooyu yépp borom bi subhaanahu wa taala nee na yow yépp nag su ma koy def dama koy nandal waaye bi maa in waahidin ci benn ndox waaw loolu nag kéemaan la mbokk yi lii suñu borom rek a ko man keneen mënu ko nee na maa man loolu mu ne it nag yemuma foofu mu nu woon nu faddilu moom borom bi subhaanahu wa taala nee na ñu gënal baadaha ala baadin lenn ci kaw la ci des maanaam mooy lan bii nga gis ko mu neex lool bee moom du neex loolu borom bi subhaanahu wa mooy ki koy def bii ñu gën koo sopp di nga gis ci àll bi garab goo xam ne pis bu jot nit ñi romb ko kenn du ko laal nga gis garab goo xam ne foo ko fekk xam nga ne garabu màngo fii ak garabu niim boo leen gisee doo doo doo doo duñu du ñu bokk njariñ ci yow de màngo ja di nga ca mën a wit garab bi papaay ba garab bi pomp li bu mu ci mën a doon yooyu mën nga jëfandikoo waaye am na garab yoo xam ne romb rek ngay def loolu nag yàlla nee na man maa ko def fil li ma def soppeeku googu ak wuute gi ci ci mos gi maanaam nit ñi buñ koy laal sax dinañ xam ne ñaar yi yamul moom borom bi subhanahu wa taala moo ko def waaw allahu akbar caf ka ga du bokk nee na moom borom bi moo ko def te moo ne benn béréb la sàkkandoo de moo ko def waaw tabar yi nee na benn benn dangay gis benn suuf benn place ngi gis fa ay xeeti garab yu wuutee wuute meññent yu wuutee wuutee nee da ngay ñëw gis raisin boo xamante ne bu weex la gis raisin boo xamante ne bu ñuul la nga gis boo xamante ni dafa neex gis boo xamante ni dafa weex garab yi neex garab yi naqari nee na yooyu yëpp day am yii gën a neex seeni morom yii la nit ñi gën a taamu yii la nit ñi gën a fonk ba tax moom la ñuy jël sax di ko jëmbat seen kër yi waaye yéen nii dañ koy sori seen kër loolu lépp suñu subhaanahu wa taala moo ko def mbokk yi nag yàllaa ngi teg fi défi garaw garaaw di wane ni moom rek a yàlla mu ne kon inna fii daalika nekk na ci lii yëpp la aayaatin ay kawtéef ngir kan li qawmin yaqiluuna ñeel gaa ñi nga xamante ne ñu ngi jëfandikoo seenum xel nee lii war na leen a yëm lay yëm nañu alaamatun baahira zahira li man aqala wa tadabbara ku jëfandikoo xelam waaw tey def ay taxaw seetlu rek dina xam ne yii yéeme na yi nag suñu borom subhanahu wa taala mooy ki ko def nee nag ku mu yéebul doon nit ndax nekk na ci lii daal ay kéemtaan yu rëy rëy rëy ngi si waaye li xaw mi yàqilu nag ñeel gaa ñi nga xamante ni dañuy xel yàlla di wax ak yonent bi alayhi ko nag fu mel ni de ngi yéemu saa yi mu mel ni dangay ngay yéemu ci gaa yi seen ñàkk gëm gi saa yi da nga yéemu ci yàlla def mu ne ko waaye am na lu gën a yéeme wa in boo demee ba yéemu yàlla na yonent bi boo demee ba yéemu fa ajabun qawluhum li la war a gën a yéem mooy seen wax jii ñuy wax fii yàlla jaarale yëpp lii mu wax ni dina ko def yépp dekkal ak di yëpp yàlla wax ko waaye teewu rek gaa yi wedd yàlla na yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na lu gën a yéeme waaw da bëgg a yéemu rek kaay ma wax la lu doy sëkk lu gën a yéeme fa ajabun li yéeme dëgg qawluhum mooy seen wax ji ñuy wax ni ay ida kunna turaban moo ndax ñun bu ñu demee ba nekk suuf a inna la fi xalqin jadid moo ndax ñun ñii ndax bu ñu demee ba nekk suuf ñun ñëpp ndax dees nañu dekkalaat ñuy dundati ay lool daal ay wax la rek awa abauna al ñun suñu bàyyi yu njëkk yaag suñu ma yi dañ leen dekkal yàlla ni leen aha kay qul inna al awalina wal axirin la majmuuna ila miqat yowm maalum ci suratul waqa yàlla ni loolu dina am ñu démb ñàkk ñu bërki démb ñi ñëpp dinaa leen xëy dekkalaat ju génn yi nag nit nag wax dëgg yàlla yenente bi yàlla ni ko boo yéemu yéemul ci gars yi lii ñu wax moo la war a yéem nu ñuy taxaw naan a ah, inna la fi xalqin jadid ndax ñun ñii kat dinañ nekkaat di ñu ñuy dekkalaat ginnaaw ba ñu deewee ba moxoñoo ci bàmmeel yi ba sax yi lekk ñu ba lépp jeex est-ce que dinañ dekkiwaat man ni réparer kay moo gën a jafe fabriquer dama wax ni mbokk yi réparation moo gën a yomb defar ki la defar kay bu la nee boo dinaa la réparé waat nga wut ko mën a gëm oto ba ñu defaree ca Chine wala ca Allemagne wala ca France wala ca wala ca dëkk bu ñu ko mën a defaree ñu àcce ko fii ci Sénégal nit yor ko di ko fi dawale bu paanee fii est-ce que paane fii rek du ko sax yóbbuwaat foofu fii lañ ko koy defarale day dem ci mécanicien bi bu dee wàllu électricité mu dem ci bu dee wàllu organe am na ku ko mën a defaral sa gëm ki defarul bu ma mën a réparer rawatina nag ki defar mbokk alayta dalika bi qadirin ala an yuxiyal mawta waaw yàlla fi mu jaar ak nit yëpp lam yakun nutfatan min maniyyin yumna wala yumna summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jaala minhu zawjayni dakara wal unsa alayta dalika bi qadirin ala an yuxiyal mawta balaa hakay yow kay mën nga ko yow suñu borom subhanahu wa taala kon kenn warula hésité wala ngay sikki sàkka ni suñu borom subhanahu wa taala dinañu dekkat mu ne yonent bi nag lii nag moo yéeme waaw boo bëggee yéem rek ñi ñàkk xel bay xalaat ndax man dinaa def loolu man yàlla waaw loolu moo gën a yéeme sax yii ñu la fi tuddal muy asamaan seeg suuf seeg meññeent yeeg géej géeg géej dex yooyu yëpp subhaanahu wa taala mi ko bind war nañoo xam ni bu leen nee dina leen dekkal ñu war ko gëm mu ne nag ñi ko weddi nag buñ la jaaxal ndax ulaika alladina kafaru bi rabbihim képp ku gëmul yowmal qiyaama rek weddi nga sa borom subhaanahu wa taala ulaika alladina kafaru bi rabbihim yàlla nee na ñii li leen yóbbee lii mooy dañoo weddi seen boroom wa ulaika al aghlaalu fi a'naaqihim mooy ñi nga xam ne bu yowmal qiyaama yàlla nee na jéngi yi day nekk ci seen loosee wal iyaazu billah yàlla nañ ci yàlla musal ñooñu day yàlla nee na dañu leen di jéng waaw yi nekk ci seen loosee na loolu mooy xaar gaa yooyu yàlla teg ca yi nag lu am solo xam nga nag dafa doy waar walla ñu naan ñoo xam ne yowmal qiyaam bu ñu leen di sànni ca sa safara dañ leen di chaîner waaw cal jël ay càllale def ko ci ñoom sànni leen xuduuhu fa xulluuhu summa aljahima sallu salluuhu summa fi silsilatin zaruha sabuuna ziraan faslukuuh lu ko war a innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yaxuddu ala taami almiskin yàlla nee na daam ñoo xam ne noonu lañ leen di laxase rek sànni ci biir safar ñoom nag la wax yàlla wax ni képp ku weddi yowmal qiyaam rek ñoom ñoo ñi weddi seen boroom ñoo ñi nga xamante ni kat loolu càllale googu ak chaîne yooyu des na ko jàllale ci seen loos ya ndax ñoom ulaay ko ñoom ñoo ñooñu daal asxaabu naari ñooy niti safara yi dëgg nag te nag ñoom kat xaaliduuna hum fiiha xaaliduuna way dappetu lañ ci safara nag buñ fa duggee dootuñu fa génn ndax dañoo weddi yowmal qiyaam te nag al imaanu bil yawmil axir loolu dafa bokk ci li jullit war a gëm gëmit dekki ñàkk koo gëm ak weddi suñu borom moo ñàkk gëm loolu ak weddi suñu borom ñoo yem yàlla wax loolu léegi nag xam ngeen ni yonente bi alayhi salatu wasalaam bashirun wa nadirun moom day bégle waaye day xuppe moom sallallahu alayhi wa ñaar yooyu yëpp ci ay melokaanam la day bégle waaye day xuppee day sànn moo tax nit jël doomam tudde Mouhamadul Bachir nit jël doomam tudde Mouhamadul Nazir ñaar yëpp valable tabarakallah muy la am solo nag Mouhamadul Bachir Mouhamadul Nazir yenent bi mooy kii xuppee waaye yenent bi mooy kii béggalaate moom sallallahu alayhi wa sallam waaye gars yi daal ñoom bu ñu koy laaj waxi xupp bi rek lañ koy wax ni ko indil ñu ko ñun sa bégle yooyu intéressé wuñu ndax dañ laa gëmul sax comme gëmuñu la toppatoowuñu li nga naan ajjanaa ci bu ngeen defee li am ñun soxlawuñu loolu léegi li nga xam ne nee nga yàlla da cay dóoree que sa safara yooyu indil ñu loolu ñun boobu lañ bëgg yàlla nag ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom day wayestaajiluunaka bi sayyiati qabla alxasana ñoom day dañuy yàkkamti ci yow pour nga indil leen ñaaw téef ak lu metti yi balaa maanaam mbugal mi daal la ñu gën a xaar que yi nga xamante ni dig nañ leen ko nañu balaay bi dalak na xeer yi wadd suñu kaw moom tawal ay xeer bu dee yàlla tawali doj boo dee yàlla tawali doj ak yu ñaaw yooyu ñoom la ñuy gën di wax ka wax ni boo dee yàlla du ñu wax mukk la nit yott yàlla Isaa yoo bu dee daal li ngay wax dëgg la neel yàlla nañu wàcceel taabal boo xam ni mis yu yeeg lépp la ciy ne waaw xam nga ni gars yi ñu doy waar lañ yàlla nee na nag loolu la ñuy wax waaw ñoom daal li ñuy njëkkante waaw li ñuy njëkkante mooy lu ñaaw waaw la ñuy bëgg waaye waxuñu dara ci lu rafet tabarakallahu yàlla nee na moo ne day jarul ñuy wax lool de waaw ndax waqad xalat min qablihim almathulat nee na ñi leen fi jiitu woon ñoom ñi leen fi jiitu woon day seen misaal yàggul de wéy na ay misaal ci ñi leen fi jiitu woon tooñ ma ma duma leen ñoom xam nañu loolu waaw tooñ ma ma duma leen ñu ngi fi te yàggul kon kay ñoom war nañu fàttali ko loolu wa qad qalat min qablihimul mathulaat borom bi subhanahu wa taala nee na daal moom daal wéy na leen fi jiitu ay fan ay nit ñu caw rommoon nañ fi tooñ ma waaye ma def leen na ma leen def loolu yàggul dara mu ne wa inna rabbaka sa borom daal la du magfiratin boroomu njëggal la linnaasi ñeel nit ñi ala zulmihim ci seen tooñ yi waaye wa inna rabbaka naka sa borom daal la shadidul iqaab ku tar nu muy mbugale la moom borom bi subhaanahu wa taala bëgg jullit yàlla nee na moom daal ku bari yërmande la ci nit ñi ci tooñ gi ñuy tooñ da koy tooñ sax mu baal la waaye it nag teewul li muy mën a baale yépp wa inna rabbaka moom sa borom moom it la shadidul iqaab ku tar nu la leer na la shadidul iqaab ku tar nu muy mbugale la kon nag mbokk yi yàllaa ngi mbugalam mu ngi ki moo tax suñu maam ju baax ja sama xarit boobu rek tabarakallahu maam Ibrahima Sakho da daan wax ni yàlla de moo ne inna allah gafur rahim waaye moo ne inna allah shadidul iqab nee na yàlla nee na moo mën a yërëme waaye nee na moo mën a dumaa kon nee na nañuy moytu yàlla ñu yàlla moytu la mbokki jullit yi seen tafsirul quran di jeexul waaye ñu ngi yem ci aaya 6 juróom-benneelu aaya ci saar bi di suratu raad yàlla nee na daal moom borom bi ku am yërmande la ku mën a jéggale la ci nit ñi ci seeni tooñ waaye nag ku mën a dumaa la nañu moytu kon yàlla nañuy mucc ci dumay borom bi yàlla nañu am yërmande borom bi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan seet la ci ëpp njariñ ñu jariñoo ko waaye nag te war a ñu ziar ci nag tabarakallahu tey ñu mag su suñu xarit tabarakallahu suñu grand frère colonel ma juuf nga xamante ni moom saa yu tafsirul quran bi jotee mu ñun ñoo koy àndandoo ba muy jeex tàkk macha allah di ñu ci jox ay conseil am ñu ngi koy ziare mboobu it di ko ñaanal yàlla mu defal ko tawfiq waaye ziare yi nag suñu jaar baat tabarakallahu euh, may mun a jóob tabarakallahu soxna ndey may mun a ñun ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci tafsir bi saa yu dooree ñu ñun ñoo koy bokk bu ñuy door ba bu ñuy jeexal yàlla leen yàlla defal jàmm tabarakallahu defal leen digg digg yi jullit boole leen ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan ñu seet la ci ëpp njariñ ñu jariñoo ko tabarakallahu suñu frère tabarakallahu Abdou Ba Njëgan moom it nekk ci service des mines ci Thiès moom it saa yu tafsirul quran bi dooree nee na bàyyi na yitteem yëpp di ci ànd ñun moom it ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan seet ëpp njariñ ñu ziare ko ziare moom nekk ci service des ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci tafsir bi ñuy jot seeni i kàddu yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp allahuma alhimna marachida umurina wa aisna min shururi anfusina wa min sayiati amalina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh